xibaar yi tey daanaka benn ponk la muy finalu coupe d'Afrique des nations Sénégal nar cee laa lekk équipe bu Algérie bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee dinañ fekkee en direct kon euh, ci euh, njëlbéenu Midi Culture Mamadou Ndiaye di ndawul euh, King FM foofee ca Caire ci biir xibaar yi itam dinañ defub faram-fàccee ci équipe nationale bu Sénégal ak toll tolluwaay bi kon ubbi leen ci itam pàcc bu yaatu doyen Abdoulaye Diaw sax mooy nekk ganu xibaar yi li mbokk yàq leneen mun ci noppee. dañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu nar caa gën a fës kon euh, li lee di euh, kalbas leget ak solo si mu làmboo pettaaw di te nekk ni ko nit ñi di jëfandikoo gësu bi tey ñu daje kon Ouzo Amoniac di ab artiste plasticien nataalub ba euh, Badara Diagne Golbert ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. midi culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoo Kati Ndiaye ñoom ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yi ñuy suivre mi ngi noonu kon nañ ko xecca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi utali Caire ila Égypte Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi bu baax Kati maa ngi lay fay mi ngi noonu kon Mamadou Ndiaye jamono ji Sénégal ak Algérie nara laale ci kanam tuuti bu juróom-ñaari waxtu jotee fii ci réewum Sénégal yam ak 21h foofee ca Égypte lan lan mën a jàpp ci euh, biir équipe bi ak foofee ci euh, Égypte. voilà fii liñ ci mën a jàpp mooy. Euh, ambiance bu neex ah gis euh, tey ci suba ba léegi supporter yu bari di wàcce euh, match match bi nga xamante moom la Afrique bi yëpp di xaar ni ma koy waxee waaye àddina parce que dañ koy suivre partout dans le monde mu nekk finale Coupe d' afrique des Nations 2019 ci diggante Sénégal ak Algérie tey nag maa ngi nii jógee ci supporter sénégalais yi seen wàccaay ci match bi ñoom ñu ngi noonu di añ di fas yéene jóge fa dem uh, fi nga xamante ne mooy stade bi xam nga fii dafa nekk dëkk bu yaatu boo xoolee dix neuf millions d' habitants ñoo xamante ni ëpp na uh, bu baax wala mu ñett ñeent ba juróomi yoon population Dakar donc loolu dafa nekk uh, wala li nga xamante ni moo moo nekk dëkk bu wane ni Égypte wala Caire dafa nekk dëkk bu yaatoo yaatoo yaatoo donc ñu bi ngi nii di déplacé wu di jógee fi nga xam ne supporters yi fa lañ nekk beneen ci biir Caire la mais dafa xaw a sori lool fas yéenee jubali stade stade nag tey moom xam naa ne moo nar a nekk attraction bi fii parce que li nga xamante ni moo ko waral mooy final bi eh, bi ñëpp di xaar vingt une heures wax nga ko lu jotee fii ci Caire la dix neuf heures euh, ca euh, Dakar mu nekk final Coupe d'Afrique des Nations ci diggante euh, Sénégal ak ñii di Algérie uh-huh. Mamadou ñu gis ni tamit naam ni amaguñu sax li la di onze de départ yi yaakaaruñ ci tamit changement bu bëri di ci am yéen ñi nga xam si yéen a nekk ak équipe ban jàngat ngeen ci am jàngat biñ ci am euh, changement benn lañ ci yaakaar ne changement dina am mooy xam nga ni euh, ku ne xam nga ni euh, Kalidou Koulibaly du ci du ci bokk donc changement ci défense bi ki yaakaar njort nañ ni dina am ku bees ki nga xamante ni wala ñu indi ki nga xam ne mooy Salif Sané moom daal di koy indi changé ko wàcce ko ci défense bi mu dem liggéey ak kii di Cheikhou Kouyaté keneen ki euh, li ñu ci jàpp gis ñu ci changement bu bu bu bari maanaam ci kaw à partir du milieu terrain bi ba ci euh, attaque bi ci milieu terrain bi gis nañ ni xam naa ni ñu fay xaar kii di Idrissa Gana Gueye Henri Saivet ak kii di Pape Aliou Ndiaye attaque bi ñu ngi xaar kii di Ismaïla Sarr ak euh, Sadio Mané ak kii di Mbaye Niang ñooñu daal la ñu jort ni war nañ mën a démarrer li nga xamante ni tey mooy match bi nga àddina di xaar wala Sénégal di xaar wala mën nañ ko jàpp tamit Afrique di xaar parce que moo nekk final Coupe d'Afrique des Nations ci fàttali Sénégal final euh, bi mu mujjee joué final Coupe ci atum 2002 euh, la woon euh, Algérie moom joué na ñetti final bu ñu fàtte ko ci atum 90 mi ngi ko jëlee foofu ci dëkkam foofu ci Algérie. jërëjëf Mamadou xam naa dig daje ci kanam tuuti ak plateau spécial bi ñu am jëmale ko ci Coupe d'Afrique des Nations di ko jaajëfal bu baax a baax kon moom Mamadou Ndiaye di ndawul King FM foofee ca Caire ca jongante boobee la ñuy des ba tey Kati Ndiaye. ak président des supporters di Issa Lay Diop nag moom mi nga xam le ni wóolu na gaynde yi te it dinañ nekk ci seen ginnaaw ba keroog rek rencontre bi di jeex. Issa Lay Diop ci micro euh, Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi ak euh, Issa président supporter de 12e ñu ngi waajal nii añ la ñuy def jërëm dem euh, stade fii stade da ngay teel a dem Issa Lay nan ngeen di waajalee fi mu ne nii final bi. mais sant yàlla bu baax wax alhamdulilah rabbil alamin fi leen taxawoon ñaan suñu borom yàlla defal ñu ndam te ñu war taxawaat sant ko ba pare ñaan yàlla mu dolli ñu. mais aussi sant Sénégal yëpp yëpp yëpp seen ñaan yëpp est ñu fii ci kaar ñu ñaanaat aussi ngeen ñaanalaat gaynde yi yalla dafa leen ndam ndam bu set animation bi nak boobu ba léegi nii la rek amul toy amul san buñ xeye buñ jullee def suñu entraînement def suñu réunion de coordination ñu ngi ci répétition yi actuellement ñu ngi ni préparer añ buñ paree añ ñi incha ba def suñu débat de ñaan suñu borom rek tegu ci yoon bi dem stade léegi ni voilà mu nekkon euh, Issa Lay nekk président 12e Gaïndé di wax ni ñuy wajalé finale bi di fatalé ni 21 h la fi ci Caire 19 h fofu ci Dakar mu nekk Sénégal Algérie finale Coupe d'Afrique 2010 mel ni kon foofee ca keer mu ngay yëngatu fii ci réewum Sénégal tamit kenn demul ñu des waaye laata ñuy ñëw ci loolu doyen Abdoulaye jaw yëkkati nay kàddu jagleel ko gaynde yi ba tax na moom chroniqueur sportif bi le mi ngi wax góor aliwu Aliou Cissé ni rek nañu ànd ak dal ca kanamu algérien yi waaye itamit xam le ni wóolu na équipe euh, Sénégal bi nañu teewlu ay kàddu Abdoulaye jaw nañu fi bàyyi lu ñu mën di dana dem ba ci seen Henri Camara Camara entraîneur boo leen ban regret après seen carrière ñu ni la ne pas avoir gagné la Coupe d'Afrique heureusement dem nañu Coupe du Monde ba quart de finale mais loolu yëpp ay succès la yu éphémère parce que dara màndargaalu ko gagné coupe d'Afrique rek mooy des ñu koy bind tout le temps dans les annales tey jii moom la xale yi am et je crois que ce match là il le joue surtout pour Aliou Cissé devenu entraîneur et qui aspire en tant qu'entraîneur ce qu'il n'avait pu réaliser en tant que joueur moo tax ce match là c'est am match bu important pour bu bu mel naka bi di leen ci souhaiter plein succès pour le bonheur de l'ensemble des Sénégalais Sénégalais yi nga xam ni ba ñu qualifié final ba tey ñoom ñu ngi ci tey jii ku gis dëkk bi ni mu mel da ngay ñi da ngay yërëm population yi nee yàlla mi ñu tiim bu gisee Sénégal yi ni ñu ci wasloo ak mën na leen yërëm ba may leen ndam pour bañ a delloo seen loxo parce que ñu ngeen ru ñaan te war ñu delloo loxoom mu nekkoon euh, kàddu yi Abdoulaye Diaw loolee lëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Papa Madiakhaté Sarr di ngeen ko dégg ci ni mu gën a yaatoo ndax mooy nekk ganu Midi Culture ñu woyal kon wax ci ka nga xam si moo di Kalidou Koulibaly yëkkati na ay kàddu dinañ daal di def uh, a mën a jël li nga xamante ne moo di uh, final bi ni mel Kalidou Koulibaly uh, ci micro Mamadou Ndiaye. ça nous fait très plaisir parce que. Euh, mbégte mu mag la am egsi ci final bi war koo joué moo nekkoon sunu mbëbët tey jii egsi nañu ci te lii lu baax la ci taarixu Sénégal li ci des nag mooy jeexal gàddu coupe bi yóbbul ko askan wi Sénégal coupe d'Afrique bi dañoo waroon wane sunu bopp wan Afrique yépp ne bokk nañu ci équipe yi gën a mag ci continent bi bi ñu jugee ci coupe du monde bi lañ ci commencé xalaat waxtaan nañ ci bu baax ñun suñu biir xool ban taxawaay la ñu war am ci compétition bi man nag duma bokk ci final bi naqari na ma loolu waaye wóolu naa samay coéquipier te gëm naa ne ci terrain bi lépp lu ci war dinañ ko def ngir gàddu trophée bi indil ko askan wi laataa match bi di tàmbali dinaa nekk ci vestiaire yi dinaa ñaax sama moroom yi li ci des nag ñoom ñoo ko war a def ci biir terrain bi te gëm naa ne dinañ ko def ni mu waree. kàddu yi Kalidou Koulibaly Papa kàllaamay wolof keneen ku ñu leen di gën a leen moo di Aliou Cissé. moom nag moom moo nekk ñaareelu coach Lyon yoo xamante ne rek yóbbu na leen ca final ba ba ca njëkkoon rek moom moo di Bruno Metsu ca atum 2002 Aliou Cissé nag ñu lay yi daal dinay dellu si waat ci bi nga xamante ne doonoon na joueur ak jamono jii ni mu nekkee sélectionneur gaynde yi Ali Cissé dalé ko ci joueur ba ci coach doomi Ziguinchor bi ba muy am juróom ñenti at le wutali Vol de marne dëkk ci ben koñ bu siiw bu tuddu bois ci koñ bobé sax la Jamel Belmadi di xaritam bi mu wara jongantel tay ngir xëccio Coupe d'Afrique des Nations bi Aliou Cissé bokon na ci groupe Paris Saint-Germain di vice champion de France 1999 2000 jongante fa ñenti match ci Ligue des champions 2000 2001 saison bi ci top mu fekki wa Montpellier 2002 gi mu doonee capitaine équipe nationale de football bi le sax ci la dem sen finale bu njëkk at momé nak ba 2006 mu nekk ci championnat d'Angleterre Aliou Cissé jotna signé contrat ak wa SC Sedon Ardens 2006 ba 2008 laata muy fekki wa Nîmes le 1er septembre 2008 janvier 2012 Aliou Cissé dellu si tanière bi nekk adjoint wu Karim Sega Diouf di won entraîneur équipe nationale olympique bu ndaw ñi amagul ñaar fukki at le 4 mars 2015 nak la ko fédération de football sénégalaise bi tabb le poste sélectionneur des Lions mu à le 14 juillet 2019 ginnaaw bu Tunisie Ben bal ci dara la dem final Coupe d'Afrique des Nations Waye Bileyon, yoon sélectionneur jaajëf Ndeye Maty Dieng ci euh, Coupe d'Afrique des Nations beeg final bi am ni ki tey la ñuy des ak gisaanekat yi gisaanekat yeeg sëriñ si nag jamono ji ñu ngi wane seen bopp bu baax ci biir match euh, Sénégal ba tax na rek askanu euh, Sénégal yi nga xamante ne rek Oumou Hakim àcc daje na ak ñoom ñu ngi daal di xamle li ëpp importance rek moom moo lay xew ca terrain ba nanu ko teewlu marabu yi ak voyant yi ak voyant yi nga xamante ni ñu def ay pronostic wala di avancer ay score mbala match yi di tàmbali ñu ma si yaakaar rek mooy du lu am solo lool ndax li ma gëm man mooy affaire bi ci biir terrain bi la ci détermination joueur yi la dépendre waaye dépendrewul ci ay ñi nga xamante ni dañuy gisaane wala ñi nga xamante ni dañuy digle ay sarax ne buñ defee lii war na mën a tax ñu am résultat bi wala résultat bee. maa di wekk lépp ci suñu borom. waaw parce que moom dogal bi yëpp moo ko yore. parce que doomu aadama kese kese kese kese xam li am ëllëg. fekk soo alpha mënoo fay xam ko. parce ñaan yàlla mu ma ñu ndam moo gën ku nekk naan diw dina gay dina gay moom yooyu moom du ma ci dugg gerte lu bokk la sunu aada la quoi xam naa ay sëriñ yeeg genre yooyu noonu dañ koy fi leen ko fekk fi leen ko bàyyi tamit mais man dama jàpp yi ñu ngi nii seen football ay trophée mais foofu gisuñu fa ay sëriñ gis lu ma gëm ni daal jom la fulla ak xam-xam bi nga xam ne moom nga am ci terrain soo ko appliqué rek incha allah rabi lépp li nga bëgg da nga def quoi final bee tax na réewum Sénégal rawatina ndakaaru soppi xar kanam bu baax a baax ca Grand Yoff rek askan wa fay yeewoo jamono ji euh, toggatunu taxawatunu ndax euh, bile match ñi nga xamante rek ñoom ñoo di euh, sénégalais li ñuy ñaan joueurs yi mooy rek ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di algériens yi waaye itamit Kalidou Koulibaly ñàkk joué nga muy ñàkk joué nag jaaxalu leen benn yoon reportage Aminata Ba ca marché Grand Yoff melokaan bi benn la muy couleur de la nation yi di vert jaune rouge a yi ñu fekk ci seeni table CHAN 2019 bi ak di waajal bu baax match Sénégal Algérie bi waa am ci juróom ñaari waxtu ci ngoon euh, ci final Coupe d'Afrique des Nations. boo xaar rek soo demee final ñàkk boo delluwaatee si final sa xel day nekk ci loolu mais am nañ confiance yàlla nañu nekk suur boo xam ne suñu chance de jine rek parce que affaire yi de jine bokk quoi. fas yéene nekk si ginnaaw gaynde yi rek supporter leen. soxna yi ñu fekk ci marché bi desuñu benn yoon ci ginnaaw ñu ngi doole la gaynde Sénégal yi. waajal a ndam li ñëw. yàlla na yàlla laf cat nag sunu gaynde yi delloo si ndam. ñoo ngi koy ñaan ñëpp di ko ñaan sëriñ sépp daal ñëpp la na ñëpp nañ def ñaan euh, sénégalais yi ñu ngi woo gaynde yi ñu ànd ak jàll ngir mën am ndam gaynde yi mooy ñu xam ne ñëpp ngi seen ginnaaw rek ñu gën a góorgóorlu baax xam ne sénégal gépp ñu ngi seen ginnaaw gaynde yi maa ngi leen na leen bu ñu ba ci six saaru jàmbur nañ di téye comme Sadio Mané keroog lu mu def loolu grand suré ko yëpp boo yeggee ba ci six saaru jàmbur nga mën a bal bi taxaw kalkini euh, xam nga foo yàkkamte nga dugg góor mais dugg si six saaru bu la am nga penalty boo war a tooy ñi ñuy daje nag loolu leen mooy seen fort ñoom bu ñëwee ba ci six saaru duñ yàkkante ci dara dañuy téye bal bi normalement dox boo leen laal ñoom penalty ñàkku teew Kalidou ci final bi jaaxalul Aliou Cissé mi ñu fekk ci place muy waxaale benn maillot ci équipe moom tible rek ku dem xam ne yàlla mën a dogal am ku la remplacé ay waxtu rek desani ci final Coupe d'Afrique des Nations Sénégal Algérie askanu Sénégal yëpp nekk ci ginnaaw gaynde yi ak di ñaan joueur yi ñu indi trophée bi ci biir réew mi jaajëf Aminata Ba mu nekkoon kon pàcc bu yaatu bu nu a jotaayu xibaar plateau jëmale ci jongante bet ngeen man en direct ci 99.4 Médiculture ñu woyal mbàkk bi kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa kat auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay euh, Kumba Ba dañu koy tàmbalee ak euh, làkk Tchad nag fi nekk li ñuy woote moom mooy ñu wëyal plan d'action ngir xeex li nga xamante ne moom moo di ñàkkum kaaraange. ab forum la bu ñeel wàllum stratégie di yoon la ñuy tekk ci bassin bu làkk Tchad bi ngir xeex ak groupe groupe islamique groupe islamiste pardon bi nga xam Niger réunion boobu nag daal di woon nay dajale juróom-ñetti gouverneur yoo xam ne ñu ngi nekk ci gox yi bokk Haram gën a sonal bokk na ci Nigéria Cameroun Niger ak it Tchad ñu ngi xaman sax ñi nga xam ne ñoom ñoo teewoon ci boobu la réunion ñu daal di euh, wéyal plan d'action yi nga xam ne waxtaan nañ ko waxtaanee nañ ko fa ngir xeex ñàkkum kaaraange ca région ba euh, nee nañ daal xel dal na ci stratégie yi nga xam ne jamono ji teg nañ ko. ca beneen yenn ci parti opposition bi ba tey rek amuñu li nga xamante ni moom moo di certificat de conformité. woon ci conclusion yi ñu moon na ci seen ndaje bi euh, fukki fan ak juróom la woon ci weeru juillet bi ñu nekk diggante njiitu réew ma fa di Patrice euh, Talon ak itaw yi ñu dippee ay parti privé di parti opposition ba euh, ci li ñeel wàllum certificat de conformité maanaam wane ni ñoom parti yi ñu jiite yoon yoon reconnaître na ko maanaam jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew ma moom Sakala Fia daal dinay dajale démb ay chef yu jiite ay parti foofa ñeenti chef de parti lañu kon daje nañ ak jëwriñ nga waaye nag dara soppeekuwul ndax seen këyit yooyu ba tey matagul ndax euh, waneeguñu récépissé buy wane ne ñoom ñoo jiite yooyu les euh, parti euh, te sax ci parti yooyu mën nañ ci lim parti bi ki nga xam ne nekkoon na fa njiitu réew di Yaayi Boni te sax ci législative yu ñu génn moom bokku ca woon. Ebola urgence sanitaire mondiale foofule ca RDC ñi nga xamante ne ñoom ñoo di société civile ba ña nga taxaw rek di xaarandi. dogal boobu nga xam ne moom la OMS jël ñeel wàllum Ebola ci RDC kon société ca dogal gannaaw ba nga xam ne gis nañ benn cas Ebola foofee ca Ngoma nga xam ne mu ngi nekk ci bët be penku bu dëkk ba jege lool nag réewum Rwanda jege it réew Uganda ca Uganda googu sax am na ñaari doomu aadama yu fa jotoon am Ebola loolu ci weeru juin bi ñu génn la woon. ñu jaxale ko ca Burkina Faso bi nga xamante ne rek fukk ak benn doomu aadama daal dinañu ñàkk seen bakkan ca police anti drogue yenn ci takk der yi nag daal ñu leen jële ci seen poste. ku ak directrice bi jiite police euh, judiciaire ba ñoom wàccee nañ leen ci poste yi nga xam ne moom lañ jiite woon naka noonu ay agent yu nekkoon ca police ba bés bi nga xam ne euh, ci la jëye ja doon am ca guddi kon ñoom it génnee nañ leen ca unité anti drogue ba ba tax sa gouvernement bi jël ndogal nee na képp koo xamante ni bi enquête bi laal na la euh, bépp dogal bu ñu war a jël ci yow dinañ ko ci jël moo xam bépp poste boo xamante ne ni occupé woon nga ko fa loolu du ci wàññi dara kon yi fii la ñuy yem ci xibaar yi ñeel bitim réew cantak ngeureum ñel na la bu baaxa baaxa baax kumba ba ñu jall ci tagat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. benn ponk lay doon muy kon rubrique bi ñu duppee seen xibaaru Coupe d'Afrique. ba tax na rek li ñu nar a waxtaanee tey jëm rek ci final bi war a dox si diggante Sénégal ak Algérie ki nga xamante ne moom moo di sélectionneur gaynde yi daal di nay yónnee ab message ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di askanu Sénégal waaye tamit sekk nañu ab entretien ak ki nga xamante ne moom moo di Alseyni Ndiaye nekk gardien waaye tamit capitaine bu équipe nationale bu beach soccer ñoom nag jot nañoo jël champion d'Afrique lu bëri yoon waaye itamit mu doon nag xaritu benn bakkan. ki xamante ne moom moo di Cheikhou euh, Kouyaté Papa ma jaxate dal leen ak jàmm ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique fii ak ay waxtu yu néew kii wutu Cameroun mi mujjee woon gagné coupe d' Afrique des daanu ko xam diggante Sénégal muy wut coupe bu njëkk ak Algérie muy wut ñaareelu trophée bu mujj bi mu amoon ko ci atum 1990 Sénégal ak Algérie war a daje seen ñaareelu jongante ci coupe d' Afrique nation nations bi ginnaaw ba ñu laalee woon ca phase de poule yi te feneg yu Algérie daanoon benn bal ci dara bii mooy doon juróom-ñetteelu yoon ci taarixu coupe d' Afrique di daje final fekk ne jotoon nañoo jongante ci phase de groupe ci même tournoi bi bi moy do nit juróomeeli final bi nga xamné ñaari entraîneur africain ñoko ko jonganté ci taarixu coupe d'Afrique des nations. seen xibaaru coupe d'Afrique. ay waxtu ta final coupe d'Afrique bi Aliou Cissé mi tagat gaynde yi di wo képp kuy sénégalais nga profito ci jullik ajuma ji ngir ñaanal gaynde yi ñu mëna am ndam. di leen di leen jaajëfal je crois que tay football rek mo mën def lolu waaw.

saa su nekk vraiment ñu ngi def suñu kéemte laay kattan pour di leen ko bi na fu ñu nekk nañu ñaan suba àjjuma la vraiment yàlla may ñu ndam ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu barke waajur gan gi seen xibaaru coupe d'afrique di dalal tey Alseni Ndiaye di gardien doon it capitaine bu équipe nationale bu sénégal bu bit beach soccer Alseni Ndiaye ma ngi lay nuyu coupe d'afrique des nations bi sénégal di jouer final am aljuma al seni nan lay waajee final bi d'autant plus que am nga ci xarit muy euh, capitaine Cheikhou Kouyaté final moom sénégal gi yépp ñoko wara préparer donc ñun yépp ñu koy préparer di ñaanal équipe bi parce que 17 euh, ans après ñu démarre final sénégal yépp instant bi dañ ci wara japp ñaanal équipe bi mu jël coupe bi parce que bu sénégal gagné dëkk bi dina neex dina am stabilité donc voilà quoi ñu ñaanal gars yi ñu dugg ci marché bi ci bismillahir rahmanir rahim waaw génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax quoi sa xarit eh, cheikh Kouyaté fas yéene bokk ci match bi ndax déggante ngeen tey boo amoon message boo koy lancé lan nga koy wax kapi moom ñu ngi déggante chaque jour moom chaque jour ñu déggante ba sànq rek avant muy dem entraînement ñu ngi déggoo donc ñoom xam nañ di leen di xaar ils sont confiants parce que aussi wax nañ leen ko ñoom dégg nañ message bi peuple bi moom xaarul dara lu dul ñuy jógee Égypte di ñëw ëndaale coupe bi incha te donc togn naa ko sax ne ko ñun dañ ñëw jël coupe bi en Égypte bàyyi nañ leen ko fa yéen ñëw leen jël ko rek ëndaale ko comme ça mu gën a neex quoi pare nañ ils sont déterminés xam nañ di leen xaar ils sont conscients aussi que ne peuple sénégalais bi mu ngi seen ginnaaw am nañ ci ñoom yaakaar donc affaire bi moom une finale comme li ñuy wax rek ça se joue pas ça se gagne dem ba jeex tak bu mu laaj gars def ko ci après yàlla suturaal ñu am ndax Sénégal neex quoi lii di finale coupe d'Afrique yow miin nga ko bu baax ndax yàgg nga jouer finale coupe d'Afrique ak équipe nationale beach soccer bi bu match bi euh, tollee fi ñu né ay waxtu rek mo ci dess ban sensation ngay am en tant que joueur. foofu en tant que joueur mom di euh, ngay xalat da fay bari parce que lenn rek ngay bëgg noy satisfaire sa peuple noy def ba peuple sénégalais bi fier ci yow donc yoy yëpp ngay xalat donc fu mu nekk nii par force joueur bi dañu am ben pression avant coup d'envoi bi pression day ñëw parce que li ngay xalaat mooy bari parce que yaa ngi xalaat boo gañee xam nga yaa ngi xalaat aussi bu na gañee yëpp yoy yëpp da koy xalat nan bu na gañee donc déception bi tes parents yi am ci yow yaakaar yooyu yëpp donc donc yoy yëpp da ciy joué quoi mais suffit que arbitre siffle rek donc voilà pression bobu yëpp day dañ après donc leneen rek ngeen di gis foofu neen mooy la victoire te une finale mom xam nga te détermination envie ak mental surtout mental parce que genre compétition yu mel nii moom final moom amul mental bu tout rek dafay déstabiliser moom donc il faut être précis sur les plans dara dara dara ba nga déstabiliser dara muy arbitre supporter tout ba dara ba nga déstabiliser nga concentrer aussi sa objectif mooy de ñoo pour gagner rien que la gagne kefe ko bu ñu defee te ñoo jori non noonu lañ nar a ñëwee di nga xam né gaay gars ñëw nañ ak détermination parce que match bi incha allah dina différent ak match bi ñu jiwoon match de poule bi parce que boobu dañ ñëw respecté Algérie de trop donc bàyyi ko ñoom ñu déroulé match bi donc du demee noonu incha parce que bii beneen match lay doon. lii lañ leen indiloon ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen ëllëg ci numéro bu mujj bi. Hello la famille, Africa Unit. Pape Madiakhate Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan xibaaru caada yu wér te wóor ñu daal di koy tàmbalee wax ci kalabas ñu gën koo xam ci leget jamono ji nag seetlu nañ ne la ñu koy jëfandikoo nag bëreetul donte sunu maam yee ko fi bàyyi woon ndax baax baax yi mu ëmb rek waaye itamit nanu ko mënoon a jëfandikoo ci yenn euh, cérémonie familiale yi lu ci mel ni rek ay mariage wala ngénte sénégalais yi rek ñu ngi daal di xam ne ne jamono ji war na noo delluwaat ci li nga xamante ne moom moo di leget reportage Aminata lool moo tax ñu koy jëfandikoo ci xew-xew yu bëri bu ci mel ni aada ak cosaan ñaari soxna yi di ko dëggal. leket day law day yokk lépp loo ci jublu di ko ci def rek suñu boroom da koy baat da ko barkeel day yokk leket booy tudd ñu ne jëlal leket sooy am doom buñ lay watal leket la ñuy jël watee ko doom ji séet ñu ne jëlal leket ba def ca laax ba tegal ko séet bi mu lekk donc leket daal li muy fekk dafa bëri. dañu waroon a topp suñu maam suñu maam bi leket nga ci la ñu doon lekkee laax dégg nga ak mbàttom bi leket dafa baax leket day day tax ba kër day yaatu wasit bi yaatu. leket ñu ko doon demee marché loolu nag jafe gis loola jamono jii ba tax na ñaari soxna yi di ko ñaawlu. loo ci gis xale yi nga xamante ne dañu bàyyi ŋàbbu mbuus amul sutura boo yore woon ñaari junni tamit nga ŋàbbu mbuus ndugg ci amul sutura. moom daal pàññe la xam ak ay ay nu si wax te loolu baaxul ci kër loolu du tax ba am kii waaw mu yaatu. su ko defee loo gis nga lekkat loo ci liggéey rek day barkeel. astu ak xadi bu ñu sañoon ñu sàmm li fi suñu maam yi bàyyi woon. xale yi dañu war di jël leket di ndugg yi xam li maam yi daan def kër yi di naat gis nga kër yu bëri naatatul dépense di leen të lu bëri di leen të ŋàbb mbuus dong. ma bu ma sañoon moom la ñuy utiliser lekkat su ñuy dem marché nañ yóbbu lekkat su ñuy ceeb. lu jëm ci wàllum jaayuma juntuwaay bile di leket te bëri njëriñ lool ñu ci yëngu nag ñu ngi ci gis seen bopp bu baax jaajëf Aminata Ba ñu wax ci leneen loo xam si tamit mbirum aada ak cosaan la muy pettaaw mu doon loo xamante ne rek askanu euh, Sénégal naka li ñu koy jëfandikoo bëri na am na ci ñoo xamante ne rek dañoo koy euh, dem seeti rek ngir daal di xam seen ëllëg nu muy tëre donte rek li nga xamante ne moom moo di euh, diine jëm ci wàllum islam dafay daal di tëre li ni mel reportage yu may mun a ñëngandóor tani wala petaaw nekk mbiri aada ak cosaan soxna sii ñu fekk fële ca marché Castor di wuyoo ci turu Moumi Ba di nu xamaleeg moom petaaw de yi am na ñoo xam ne dañ koy seet di si foo am na xam ne dañ koy di ko ëpp téere di def seen téere wër ko téere ba mu fees am ne dañ ko ko aar ak jaaro comme def noonu am na ñoo xam ne aar leen tax a jóg ñu bëgg a petaaw am na ñoo xam ne dañ ciy def na ñoo xam ne dañ ciy jibar petaaw nekk mbir moo xam ne fii ci sunub réew daan ko doon jëfandikoo ci yeneeni anam Binta Càndum seetkat moom li li lañ ci wax. instant am na njëriñ ndax nit di nga toll foo xamante ne ni mën nga nekk di dund lu metti nga dem ñu seetal la ñu wax la say sarax nga def ko soo defee say sarax yàlla suñu borom defal na si jàmm waaw loolu moo ci avantage bi mais am na yenn seetkat yoo xamante ne tamit di déglu seen wax problème la mën nañ laa jaxaseeg say mbokk jaxase la ak ñeneen ak ñeneen ça dépend daal. waaye mbir moo xam ne dina nangu ko benn yoon buñ sukkandikoo ci kàddu yu oustaz Ibrahima. petaaw nag li ñu ci xam takk ko sax dafa xaram ndax yonent bi dafa wax ne shirk la dañoo wax ni man alaqa tamimatan faqad ashraka képp ku takk petaaw ngir muslu ngir ay wàllu bët wàllu cat ak wàllu yooyu loolu dafa xaram da nga mel da ngay bokkaale yàlla waxatuma la nag nga dem nag di ka seetlu am na ñoo xam ne yi dem ci nit na ko dama bëgg nga petaawal ma xoolal ma yonent bi wax na ni képp koo xam ne dem nga ci ni toog ngir mu seetal la ngir mu pettaawal la ñeent fukki guddi doo jaamu yàlla kenn ko nangu lu ci mënti am pettaaw wala yi nekk na mbir moo xam ni maam yi dañ ko daan jëfandikoo ngir xool seeni ëllëg ak lu leen di gàllankoor naam ñu bëri jàpp nañ ni sax diine nanguwu ko. may mun a ñi ngi nduur dañuy wax kon ci gëstu bi tey ñu seq waxtaan ak Ouz Amoniac. mu nekk rek ab artiste plasticien boo xamante ne rek ci banlieue dakaroise bi la daal di nekk donte rek li nga xamante ni mu ngi koy defar rafet na bu baax dafay nga xamante ne moom moo di ay tableau li nga xamante ne lool loolee la gën a bëgg moom mooy daal di mën a exposer ay œuvre am fépp rek ci àddina bi jox Mbodj moo xam xamleek moom du Ousmane Konaté ñu gën koo xam ci turu artiste bii di. Ouz Amoniak mu yëngu ci xeetu art plastique yu bari yu ci mel ni. damay def portrait damay def graffiti damay def abstrait perso yeeg yëpp dañ ko def. yàgg lool ci métier mi ndax kat mi ngi bëgg a defub diir ba mu ci duggee ak léegi. yàgg naa ci nag parce que depuis bi may xale ba tey ci la nekk mais daal bi ma jàppee ni dama ko war a def métier 2003 la. ak seen art bi li muy rafet rafet yëpp nag waaye li leen gën a sonal mooy foo xam ni dinañ ko fa man di exposer. fii moom amul benn béréb boo xamee ne ni xalaat nga ni jàpp nañ ko defar ko pour maanaam exposition non gisuma léeg-léeg dañuy dem lu mel ni centre Galle wala ñu dem CDEPS léeg-léegi sax am na yoo xam ne dañoo obligé ay bâche def ko ci mbedd mi. donte ni aar bi muy def rafet lool muy aar plastique waaye nag fii ci banlieue bi ñu bari ay tableau yi teelu leen li leen sonal mooy lu ñu xëy def ci seeni biir. da waxtaan ak nit ci boppam mun la saa li nga defar rafet na mais da leer na ni li muy xëntee moom ci boppam li mu leen njëkk wax mooy xam naa li ngeen def valeur bi mu am. mais moyen wi néew fii parce que kenn koo ci gis day wax ni surtout ci banlieue bi ñu dëkkee kenn ko ci ne li nga nekk sa kanam mooy saaku ceeb boo samp noo dawee sa dépense moo tax sa tableau mënuñu ci def dara. moom Ouz Amoniang jàpp ni loolee lenn rek moo ko mën a saafara. tey na nañoo am benn structure bu baax boo xamee ni mooy gérer parce que artiste mën na defar mënoo nekk tout le temps chaque jour ngay xalaat di job ba pare bëgg a kereel sa bopp ay marché mënul nekk mënul nekk loolu nag boo amoon ci lay gën a ne mooy bëgg na def expo exposition bu mag boo xam ne ñëpp dañ koy découvrir waaye bëgg na galerie boppam waaw wax dëgg yàlla rêve artiste bu ci ne bu sañoon dina am galerie boppam boo xamee ni ay œuvre ku ci ne boo ko soxlaa di dem ci galerie fekk fa ay œuvre loolu moom bokk na ci rêve artiste ku yàgg ci teen baak fekk la fa kàddu yooyu nag la Ouz Amoniack làmbo ba tax nag deltuwul ginnaaw benn yoon ci aar bi nga xam ni ci lay yëngu ak jafe-jafe yi nga xam ni yépp ñu ngi koy jànkoonteel mu jàpp rek ni ëllëg loolee lépp dana saafarawu joor mboo ci beneen xibaar bu ñu fi dab léegi kon di Aboubacar Ba nekkoon kon artiste comédien moom naka daal dinay eh, génn àdduna dis après ramon ko xamal jombul dinañ ci dellu siwaat sunu jotta yu xibar ci ni mu gëna Midi Culture ñu jall ci natal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xam ba Alioune Badara Diagne. moom nag euh, li tax ñi ci gën koo xam rek moom moo di wàllum euh, théâtre sénégalais gi nga xamante ni daal dina ci wone boppam bu baax yóbbu ko fépp ànd ceeg génération yëpp yu ci mel nii waa Bara Diogo Coumba Ndar Samba Ndar ak it yeneen Mamadou Sow moo ñu defaral portrait wam maa tàngal sa tala gi maa tàngal sa tala gi kàddu yooyee bàyyeeku ci ku kenn dul culture si Sénégal rawatina théâtre El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert gane si àdduna ci atum 1941 weeru septembre doomu ndar bi doon na ku teel a bàyyi l'école ndax bi muy def cinquième sa lycée technique André Pétavin bu Saint-Louis la dakkal li nga xam ne moo di jàngam ngir lancé wu ci wàllum rajo laata loolu Golbert Diagne jot na jaar ni ndar-ndar yu Alioune Badara Diagne Golbert yagna na bégal ak waxtaanloo wala sax jangale sénégalais yu bari ak li nga xamné moy téléfilm wala théâtre yamu mu jouer ak groupe bi di yu bari yu melni Marie Madeleine dawda Guissé mam Sey ak it ñeneen mu am jamono ji 78 ans aline Badara Diagne Golbert lata muy jël retraite gannaaw bi mu amé jaar-jaar bu am solo ci Radio Teranga FM bu Saint-Louis Mom doomu ndar bi jot na créer emploi yu bari ak it formé journaliste yu bari taxawayam bu am solo bi mu am ci dëkkam bi di ndar Sarr di firndeel rek waxam yi dëkk si dëkk bi defar dëkk bee ko gën. baay bu baax bu jaañ balla diggéen biti la ko yoon yi jaañ borom ndar-ndar bi xamee nañu la fii ci ndar lu baax nga fi def fii nga ndar baay bu baax baay bi yëpp meloon ni bàyyi yi baay yëpp meloon ni yow su baay yëpp doon defe ni yow. benn doom dootul jàng El Hadj Golbert Diagne di fàttaliku way dawde yi at mu nekk ak événement religieux bu mag jullit yi jóge fépp ci Sénégal ngir teewee loolee ngir ñaan ak it jàng alquran wa an takuna lahum akthara tajawuzan an sant suñu borom ndax lii du juddu du jàng du taar du alal du doole te nit mënu ko man dama gént rek dem ci ay kilifa mun ma defal ma def toog rek ne kaay ñu wàcc ci ku nekk bàyyi soxlaam ñëpp ñëw kon ñoom ñoo ma gën

jaajëf Mamadou Sow doon nu defal tey nataalu Alioune Badara Diagne Golbert midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar yi. tay euh, li la di Coupe d'Afrique des Nations que final bi mo sabab ñuy dalal doyen Abdoulaye Diaw. ba taxna na rek daal dinay dellusiwaat ci final gu maggi wara dox ci diggante Sénégal ak équipe Algérie niki ki euh, tey ki nga xamante rek moom mo sék ak moom waxtan bi modi di Papa ma jaxati sax. doyen Abdoulaye Diaw ma ngi lay nuyu euh, tey yaay sunu gan ci Midi Culture exceptionnellement ak final bu Sénégal wara jouer Coupe d'Afrique digganteem ak Algérie fi ñu toll di wajal jongante bi ana lan moy sa sentiment. bon jox ko ak rek quoi jox ko ak parce que final ça n'arrive pas tous les jours xale il se fait en depuis 4 ans avec Aliou Nous mosuñu un match bu important bi yi ñu def c'était pour nous. fii fañ daan jaar c'était pour nous en Afrique ou dans le monde Les gens nous en Afrique Donc, yàlla ba nga il y a eu des générations devancières qui en avaient le niveau et surtout l'ambition mais réussir une ci je fais allusion à celle de la première finale de 2002 heureusement nous n'avons pas eu ci finale Finalou 2002 bi ñoo leen di encadré depuis Aliou Cissé qui se trouve leur entraîneur et qui est de cette génération mu ànd ceeg ñoom Lamine Diatta ñoomin Tony Silva ñoomin euh, Oumar Omar euh, ah hein, Khalilou Fadiga et nous ñëpp ñu ngi autour de Aliou Cissé la moitié de 2002 est autour de l'équipe comme pour leur faire comprendre qu'ils ont rendez-vous avec la gloire Sénégal di daje fi Algérie na équipe bi war a duggee ci bi euh, c'est un match dans lequel le joueur se motive tout seul. Tout seul. C'est un match dans lequel vraiment le joueur se motive tout seul. discours yi ñu daan dégg yëpp mais li ñu daan wax ak di finale. def ba mu indi leen ba final léegi bu ñu yegsee final dañ match bi am génération yu ko wut amuñu ko ba c'est te ñoom am nañ ko parce que barewul ñu la j'ai joué tant de finales de coupe d'Afrique surtout nga xamee ni tey l'équipe a atteint l'âge de la maturité âge maturité soo ko déggee entre 26 ans jëm kaw c'est très très rare que ce soit dans le monde équipe yuy régné j'appelle équipe yuy régné final c'est très rare le nivellement est tel que bon, tout le beau jii final da ngay dans le rang alors Maudit, qu'ils fassent leur propre légende il faudra donc éviter sur leen ba ñu yabu ko heureusement que ce sont des professionnels Maudit ñëpp Maudit di seen liggéey moo vous à ce stade de la compétition Nous avons dit avec ak Algérie mi nga phase de groupe ndax yaakaar nga ne loolu mën na am lu ci état d'esprit équipe bi parce que il est remobiliser je dis parce que buñu waré waree Algérie en finale mais ñu ni pas bala nga koy mom en finale da ngay jouer ak en poule kon dama je ne préfère pas gagner ko en poule nañu nul pas en poule pour war dajewaat finale parce que on a constaté que dans le monde qui a gagné en poule soo a gagné en finale daf lay gagné et ce jour là xolna Algérie booba ba parce que je disais à quelqu'un j'ai regardé tous les matchs de cette 32e canne ben raté wu dama tok xol match la l'Algérie euh, qui avait joué contre le Sénégal était au-dessus de tout et ils l'ont gagné par un but à zéro adversaire en finale ils savent que nous mettons situation pousser l'adversaire euh, comme on dit au surpassement ou au dépassement pour l'avoir battu en poule à en finale alors moi, d'ailleurs je crois beaucoup parce que les joueurs savent ce que c'est retrouver l'adversaire qui vous avez battu en poule à en finale Abdoulaye journal sportif jaajëf Pape Madiakhaté Sarr ñu jeexale kon jotaay bi kat ak wàllu musique wàllu musique la ni koy jeexale tey nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di euh, doomu gaynde bu Omar Pène génnoon ca tub 2009 mani warul tiit warul ragal moom warul noonu kon lolé liko équipe nationale bu Sénégal nara la équipe bu Algérie lolé ci kanam lay final coupe d'Afrique des nations nara amé kon ci fi nga xam si di Égypte dinañ len ko Mamadou Ndiaye di ndaw fa ñu ambiance ba noonu kon fofé la ñu yem ak yeen mbokk yi ci midi culture di la jaajëfal bu baax baax kat Ndiaye ma ngi lay jaajëfal bu baax Serigne salif sek di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu doon suivre di leen jox dig dajé suba inshallah ci midi culture di jaajëfal bu baax baax Daouda Gueye mi nekkoon ci euh, machine bi production Kader Lo digital yassine Pouy légui euh, légui kon pap Cheikh Diallo moy ñew euh, weyel King Feeling lu moy lolot ma ngi jaajëfal képp ci japp ci réalisation midi culture ba yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg midi culture Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub. Sam Traiteur. Sam Traiteur, spécialiste de l'événementiel, spécialisé dans la restauration et l'organisation. Oui, très boo am ñu defal la organisation ba ba la restauration ba ba noppi nag toggal la yàkkal la joxeel la indil le plat couvert yu baax dama ni ñëpp bàyyi nañu xew di tek ay mbana di xamb ci koñ bi di tilimal koñ bi da ngay dem Sam Traiteur Moi, lay defal ce événement ba mu Sam Traiteur Le plus service restauration bu respecter... hygiène ak qualité moo la koy toppatool kon nag Sam Traiteur ku ne xam na ni waali dafa bëgg lu baax jili CSP indi na leen